waaw mais kenn du ñëw bazarre seen combat nekk comme Balla Gaye day day ñëw avis de cible day dem sa kaw ñoom ñaar ñëpp dañuy déglu te bu ñu démarré nag combat bu neex lay doon. Ah. am na ñu may euh, lan mooy démarré. démarré kon. da nga ne bu ñu kon tey bal bi cible dix secondes wala quinze secondes yi ngay xaar dem. waaw mu def duñ ko def ñoom ñaar dañuy te aussi. dem ci combat bu ku ci gën a arrangé. non ñoom ñaar ñëpp nag xam nga Tapha Tine tàmm na xaar boo Niang tàmm na xaar kon donc seen tactique la nag loolu nag pour ñu bëre kenn ku nekk nax sa morom wàllum coach la wàllum entraîneur ci nga koy gisee ci nga koy xamee ñoom ñaar kenn moo gën a baax encadrement ci wàllum tic tac ci làmb ji. dafa am combat bu may xaar ñaari combat yu may xaar ci saison bi ay combat espoir la Babacar. ci côté xeex ñoom ñaar bu fekkente ne dañoo xeex. parce que am na ñoom dañ ne Boy Niang moo dàq xeex xeexu kii et puis moo ëpp bëri ci carax yow loolu noo ko noo ko déggee. waaw xam nga ku nekk ak la lay ngay wax man la ma xam ak xalaat ko Tapha Tine combat rapproche boo bëriwut ak moom combat nga bëri combat bu métti boo rapproche da ngay soog entraînement bu wóor doole bu wóor. moo la fay génn te néewul doole moom Tapha Tine mën na xeex mën na bëre mën na xeex mën na bëre te néewul kattan loxoy jot na macha allah catuma ko mais en tout cas daal moom pour moom mbër bëri moom ba daan koy ñeme entraînement am doole am ginnaaw. mais booy amul lu lijjanti situation boobu ngay wax ci Tapha nit kay bu la xasee ba jël kay am na lu lijjanti sa situation am na ko mais danga ma laaj rek ma wax la ci. waaw Babacar dafa am ñaari combat espoir yu taxaw. dama Franc Tyson 2. waaw waaw Franc Tyson 2. na wax ci ko gis nga dama ko wax rek mu ne eh. xaar ci combat boobu Franc Tyson 2 Mama Lamine. ak ki nga xam ne mooy Garga 2 waaw. waaw combat yi neex nga wax de loolu de loolu rek loolu événement la boo xamante ne moom dëgg yàlla Tyson 2 xam na nekkoon na suñu école. Mhm, mhm. suñu la njëkk a jaar ba mu ngi géej waay xam naa ne ko mun bëre la mais Franc aussi tamit. yokk na ci kattan bu ku gis xam ne yokk na ci kattan te bëre baa ngi fa euh, li may conseil Tyson 2 mooy mu gën a yokk dooleem ndax muy bëre xale muy bëre am jàpp am jàpp wax ma la jàppale am jàpp lu muy def da koy da koy sentir ba pare da ko def mais ndaanaanu bërekat la moom Tyson 2 mais daal na yokk dooleem yokk puissance Franc aussi tamit kattan bi ñëw na mais kàttan day ànd ak souplesse na gën a liggéey souplesse parce que boo demee ba ne gàdd yooyu bëri dootoo ko mën a ci. Hmm. donc loolu laa koy conseillé. beneen ba Garga 2 ak ki nga xam mooy Mama Lamine bu Lamsar. waaw ah, ñoom ñaar ñëpp nag dañoo souplesse ñaari mbir souplesse ak ñoom waaw. Hmm. Ah. képp souplesse. ñoom ñaar ñëpp dañoo souplesse rapidité. waaw rapidité parce que tey boo seetaanee Garga gis nga bëri yu bëri. demi finition jaar fii jaar fee. Mama Lamine bal bi sifflé mu xeex ak yow dóor la baa mu song la baa mu rappel la kon maanaam ku ne nekk si ñoom ñaar combat bu neex la. est-ce que combat bu yàgg lay doon ñaari songukat. yaakaaruma ko de ñoom ñaari seen combat bu franc bi ak euh, Tyson 2 du combat bu yàgg. digganteeg Baboy a leeral. waaw mooy mooy lim la wax rek xam nga àdduna dafa doy waar man jamono yi muy liggéey mécanicien nekk xale bu ndaw di jàng métier boobu lu ma commencé romb ak yeneen mbër ay ñoom commando ay ñoom cek man xale bu ndaw laa boobu la déggee numéro 2 sax. si saa bi la ma daan fekk ma ko gis muy bar bar euh, bar fixe donc ma lay xamal ne kon àdduna du dara ma ñëw foofu mu eh, ma dem ba fee tamit wax ko wax ko wax ko musiba <laughs> mooy dàq yi ma jot ak yeneen yéen ak yoo xamante ne ñaam fekkante géej fu ma romb boobu nekk gu ma dara dafa yëg ne kee doomu mbër la rek mooy doomu du walees daf may conseillé liggéeyal li ngay def waroo ko def kon loolu dafa jiit suñu suñu juddu rawatina mu doon taalibe Serigne Touba kon ànd bi yàlla moo ko moo ci dugal loxo téel ko boppam ma nangu ko lool moo mu nangu ko lool mu dégg ci lu ne mm-hmm. ma dégg ci lu ne waaye xoolal tey li yàlla dogal mu ngi mel ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bokk nañ lu bari daal ba nga xamante ne daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla mu fi yàlla bàyyi ak mbooloo mu ak képp ko am ànd bu rafet What is this?